Sénégal bi muy dem coupe d'Afrique coupe du monde bii passé man maa génnoon ci internet bi waxoon ne am na ñetti bërëbu nitu yàlla yu ñu war a dem ñaan fa yàlla fekk defuñ ko am sarax bu ma leen wax ñu génnee ko ak sëriñ buñ mënti yóbbu buñ demee premier tour la ñuy toogee te loolu am na euh, Macky Sall bii man maa njëkk wax yaa six mois ne dafay am euh, première day gagné euh, élection yi premier tour ñëpp dégg ko mu leer ñëpp kon ñun lépp lu ñu wax loo xamante ne duñ wax loo xamante ne du dëgg musuñ ñu wax loo xamante ni eh, nit ñi teguñ si seen bët waaw loolu moom moo tax nit ñi fonk ñu ci wàllu boobu incha allah wax dëgg yàlla eh, eh, Coupe d'Afrique bi moom li may danaa ñaanal équipe bi wax dëgg yàlla waaye boobu ñu buñ ñëwee si man ak buñ ñëwul si man danaa def sama liste xaar xool ba pare su ma xoolee ba gis li may gis danaa leen defal ñaan bu ko defee yàlla may leen ndam am naa ñu ma si jokkool nag wax dëgg yàlla mais boobu ba tey ñëwaguñ dañuy woote rek euh, mais maa ngi leen di déglu boobu ba tey daal incha allah waaw. léegi beneen bi mooy euh, ci wàllum football. Mhm. koo xamante nii dafay def carrière football soxla ay ñaan. Mhm. wala dirigeant yi nga xamante nii nawetaan. Mhm. dañu soxla ay ñaan pour équipe mën nga leen jox ay garantie. bu wér. Euh, man euh, euh, wàllu nawetaan am na ñoo xam ne si Dakar fii ñi ma xamul si wàllu boobu bëriwul bu boobaa am na loo xam ne dañuy sampu équipe bi d'abord avant muy taw la sampu samp équipe bi. ñëw jot balaa ndox di laal suuf ngay ñëw ñu samp sa équipe mm-hmm. wax la tirage bi yan équipe ngay tasanteel. bu ñu la waxee yéen équipe ngay tesanteel dinañ la wax match bu nekk ñaata lay doon bu boobaa incha allah ba ni ngay àggee finaal di jël coupe yi. balaa kon ku ñaata la koy dóor bu boobaa incha allah loolu amul ma dem te ñam defal nañ ko ñu dul jeex fii si dakaaru gi